Serigne bu na mu ngi nuyu waa Sénégal IPTA gi nga xamante ni mooy lëmbee Sénégal nga xam ne maanaam militaires yi ak police yi gendarmerie yi dañoo woo benn tubaab mu ñëw mu rey ko xam ngeen ne bu fekkonte ne bitim réew la tubaab yi duñ ko rey ngeen xam ngeen loolu danañ feexaan nu ko mbaalee jël ko tàbbal ko ci biir géej gi waaye du nekk loo xamante ni du koy rey ñaari bi ma jàngatee ci ne maanaam Euh, ñoom ci seen wàllu bopp li tax ñu jël tubaab bi sant ko mu rey ko man daal question la boo xam ne si maa ngi koy faussé waa Sénégal ñoom dañoo amut ay fetal wala dañoo amut ay matuwaay yu ñu ko mën a jàppee wala wala wala wala parce que ñi ngi gis dafa mel ni euh, ñoom ñu ne ci ginnaaw tubaab bi tubaab bi yu jël fetal dóor nga gis mu daal di dara ji walwal te sax ci biir rey boobu noonu war nañu ko mën a rendi ndax lu duufee noonu ak dëkk bi ni mu manqué yàpp ak nga xam si yàpp dafa jafe-jafe xam ne si ni ëpp na. vraiment war a ñu ko mënoon a rendi parce que loolu kilo yu baree baree baree bare bu ko defee ñu rendi ko ñi ci bëgg a lekk dam dagg ci daal di lekk ba suur daal di naan ci naan naan ñeex ma ko defee boobaa dina nekk loo xam ne nii lu amal njariñ la parce que époutaan bee lee ma gis ne rëy na rëy goo xam ne ni ëpp na waaye rey gi moom dur ko bal mu médd moom loolu moom loolu moom ak ak dëkk bi ñàkk yàpp bi ak nga xam ne yàpp dafa seer bay bëgg dee kilo yàpp di jar ay 3000 francs bala nga ko te 3000 francs ko am nga sonn bay bëgg a dee loolu question boo xam ne si ni maa ngi koy posé waaye la ma gis ne moom yàpp duuf la bu fekkente ne ne rey bi mënoon naa ñàkk mënoon na ko mbaal yor seen i hélicoptère fexe ba mbaal ko tàbbal ko ci dem ba ci digg géej ñu tàbbal ko fi parce que jaroon na ko bu fekkente mënuñu ko ñu seet ñu ko jàppee rendi ko daal koy tong-tongoo ku ci bëgg daal ci jël daal ci jëfandikoo voilà Serigne Ndiaye bu na mi ngi leen sant di leen gërëm man daal loolu laa gis